ñi ngi nuyu mbooloo mi fi teew yépp ci turu Serigne Abdou mi nga xam ni moo baaxoo woon di def présentation Serigne Cheikh yàlla dafa dogal nag am yitte bu mu dem mu mel ni itam la mu daan wax rekk moo ci nekk dafa mel ni fa tabarakallahu Serigne Cheikh tardeel sa bopp a ngi yem ci di ko présenter nit ñi mu mel ni itam dafa am lu Serigne Abdou waxoon ca Tëngéej ndax dafa waxoon ni réew mi ñaari kilifa ñoo fi nekk kilifa bi jariñ njabootam ak kilifa bi jariñoo njabootam Serigne Cheikh tànn na di jariñ njabootam ba dunay tukki mu mel ni itam fa tabaarakallahu taxawaayam mën nañu ko nangu ci wàllu diine ndax ba ngeen ko xamee ba tey mësuleen a gis mu taxaw taxawaay bu dul luy dundal diine mën nañu ko nangu itam ci wàllu dugal loxoom ci biir réew mi fu xalaat bu baax am mu génne ko pour bëgg réew mi ak njabootu réew mi jariñoo ko ci kaw loolu itam ñuy feddali wax boo xam ni sunu wëyjur sunu kilifa di Papa El Hadj Abdoul Aziz waxoon na ko te moo di moom Serigne Cheikh kenn du wax ni nitu tariixa sàngam la donte la sax tënku na ci tariixa waaye itam ñaar bu nu dendee ba ngay da ngay seet ba ca gën a yaatu nga di ca jëflanteeg sa mbokku jullit bu nu nee tariixa ni diine ka nga bokkalul tarixa da ngeen di jëflante ci cadre diine fa tabarakallahu loolu liy firnde ji moo di bërki demb sunu wayjur ñëw na fi di papa abdoulahat mbakke ku ne xam na li cheikh cheikh alhaj malik bokk ak sëriñ tuuba moom sëriñ cheikh ŋàbb na tànkam dem ndokkeel ko ci yoon wi dalal ko jàmm won ko ni ko yéene bi nu yéene sunu wayjur Cheikh il Khalifa yéene ko sunu wayjur Alhaji Abdoul Aziz moom la nu la yéene yow papa Abdoul Ahad Mbacké loolu ku xam fi réew mi toll ci wàllu defar yaay waxe noonu yaay doxe noonu mu mel ni nag lu nit ñi am lu dul déglu ko du lu leen neex ñi ngi leen di bàyyeeg moom mu waxtaan ak yéen ah dañu wax ni Serigne Abdou ñëw na sunu kilifa fi la sunu wax di yem. nu ngi leen di nuyu yéen bokk yi fi teew yépp. nu ngi ñaan yàlla mu boole lu jàmm jàmmi biir ak jàmmi biti yàlla nu ko yàlla defal te mu bañ a ëpp mu ngi mel na li ci war a leer tabarkàlla leer na lu ne ka ko sabab dañu koy tudd ñi sabab daje bi nag moo di dairatul xayri wal baraka ki nu bokk jur bokk nu yilif di alxaji abdul aziz dabaax moo leen jox tur wi boole leen ak Serigne Abdoul Aziz Dabba mu di seen càmmiñ boole leen ak soxna umul xeer muy seen ndeyi daara daan na am waaw daan na am fi la ñu ko fekk dayre bu jigéen bi fi jëkk fii ci ndakaaru Cheikh El Hadj Malick ci jëkk cotisé fii waaw ba tax na wat ci watit la ku bëgg barke itam da ngay dem ci borom barke waaw waaw mag ñi ñoo am barke xale yi wërsëg lañu am wante barke mag ñi rekk ko am waaw wërsëg nag dana xumb waaye dafa bare coono waaw barke xumbul waaye borom dara du ko jot ci kàttanu yàlla ndax du yëg lu mu def waaw waaw du benn moom la sëriñ Babacar si daan wax ni wolof xàmme wuñu yii xàmme wuñu wërsëg ak barke xàmme wuñu jàng ak xam-xam borom jàng dana bare coow waaye du xam fu muy teg tànkam borom xam-xam rek mooy xam fu muy teg tànkam daan na wax itam ni aj màkka ak dem màkka bokkul wolof daf koy jaawale nee na miraas ak séddale itam wolof daf koy jaawale waaw xàmme wuñu miraas ak séddale ndax ne alalu jaambur boo ne bu ko jiw mosul mu ñaaw te yoon santu la ko booba miraasoo da ngay séddale waaw nee na itam dafa mel na xàmmewuñu rey ak rendi reyal ma sama ganaar gi kenn du ko wax parce que lu ñu rey kenn du ko lekk lu ñu rendi la ñuy lekk waaw xàmmewuñu nag rey ak rendi moo tax ñu bari lu ñu rey la ñuy lekk waaye lekk ñu lu ñu rendi waaw man yaa xàmmewuñu sëriñ nit ak nit yàlla booy wut xarit wutal sëriñ waaye booy wut ku la bot nag demal ci nitu yàlla waaw ba tax na e wat ci watit ayul bu mel na it ci biir loolu kilifa yi ñoonu baaxe kilifa diine yi yi fi jiitu li leen war def nañu ko ndax itam dëdd bàyyi barkeeg leer fa la yonent yi yem dëdd bàyyi barke ak leer fa la yonent yi yem passé wuñu ko te kilifa yi fi jaar fii ci Sénégal moom lañu def kon nag yal na yàlla yokk seen barke yal na yàlla yokk seen leer fa tabaarakallaahu dinaa di wax ni ñu ngi ci jamono bu jafe ba tax na lépp loo mën a am am kilifa ko gën waaw jamono bu jafe la waaw bu muy xam-xam bu muy mën-mën lu mu man ci doon soo ko amee te amuloo kilifa bul wóolu mukk waaw ba tax na kon yal nañu yàlla bay ak sunuy kilifa rafetal nañu yal na yàlla rafetal jëme ci ñoom e suñu kilifay àdduna itam ñi nu yilif ci àdduna di wóllëre ci nun ni ki waa gouvernement bi ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal dale ko ca président ci wàllu boppam ba ci premier ministre ba ci ñi topp ci ñoom ñaar ba ci kii toog ci suñu wet mu di Umar Ba lu ngi ñaan yàlla ñoom itam yàlla jàppale leen ndax bu àdduna jagee diine la jagal bu àdduna yàqoo diine la yàqul ndax ki moom diine moo bind àdduna looloo tax bu mel ni kon nag ñaanal leen ñaanal sunu bopp la waaw ñuy beral ngërëm nag sunu wëllëre ki yilif communauté yi mooy Jean Collin ndax nun ci biir njabootam la nu bokk du tànqam lu sunu dara nun itam duñu tànqam lu daraam te yàlla ngi nu boole wëllëre yal na yàlla yàggal wëllëre ñu ngi sant force d'intervention yi yépp tabarkalla ñoom itam yal na yàlla kàttanal leen te yàlla defal leen ndam ndam rek moo am solo waaw te li ci des nag mooy bokk yi fi daje te bokk ko nun ñoom ñëpp kenn ku ne yaa xam loo gën a bëgg yal na la ko yàlla defal ak bokk yi ñëwul sax te seen yéene ñëw wala seen ndimbal ñëw ñoom itam yal na nu yàlla boole ñoom yiw loolu rek mooy li nga xam ni moo am solo te li ci des nag mooy daani ki jot amul waaye rek toog rek waxtaanante ñaari baat déglu ko di ko fàttaliku ndax daara mënul ñàkk ci réew moo xam ni daara leen jur mënul ñàkk réew moo xam ni daara leen jur daara mënu fa ñàkk waaw daara nag dana dox a dox ba demee nii tey mënul ñàkk daa Cheikh Hadj Malick piréem ma ma woon ca Tiwaawan te ñépp dee ci yal na nu yàlla musal may nu dund waaye dafa waat ca pirima ba pirima yi laata jeex ku dee ci jihaatu yonent bi rek dee nga ca pirima waaw ndax moo ko tudd ma ni fas naa yéene lu yonent bi defoon ci jihaatam te mënatunu ko ndax jihaat passé na naa ko def ci sama pirimi waaw fitwaa ni toll woon ndax soo demee ba wóolu sa bopp xam sa bopp loo wax noonu la waaw boo demee ba wóolu sa bopp xam sa bopp loo wax noonu la waaw dégg naa ci sunu wayjur wi allah jéemat loo bii ci Thiès mu ànd bés moog El Hadj Abdoul Aziz ñu seet si ma ca route de Ouakam ma ni leen dama bëgg yéen ñaar kenn ku ci ne wax ma lu mu fàttaliku ci Maodo lu am solo yéen ñaar Cheikh El Hadj Abdoul Aziz ni ma li ma fàttaliku ci moom day mooy yaru na ba mel ne xale bu tuuti waaw yaru ba mel ne xale bu tuuti nee na bu dee lekk wala mu naan muy naan danga ko yërëm ndax dangaa defe ni li moo def daf ko ragal El Hadj Amat loolu ni ma man day li ma fàttaliku moo di ànd bu mag bi mu daan def lu xal jamono sedd daf ni naa ci def xal ma def yëfi dof def ca xal upp ko ba mu yànj nee na ma ñëw def ko ci suufu portemanteau bi nee na jékki-jékki mbubbam wékkiku rek daanu ci kaw ànd bi nee na soxna su tedd si ni ko góor gi sa buum sa mbubba ngeen lakk mu ne ko bu ko waxati mukk safara du lakk sama mbubb waaw koo xam ni doo tiitaru réyuloo soo ko waxee rek soo waxee lu mel noonu dalal sa xelu njaboot moo tax waaw te it la mu wax garaaw na ndax bu mu ma lakkoon rek mu rus waaw waaye na mu ko waxe la amee xam na ko waaw am na ñoo xam ne ñoo ëpp doole al anasirul arbaa waaw ndax ndoxa am ngelawa am suufa am safara am yii ñeent nag am na lu leen di tënk te li leen di tënk ci loxo nitu yàlla yi la nekk waaw moom la ñu tuddee al anasirul arbaa ba tax na tabarkalla tabarkalla sant yàlla rek nag yàlla yàggal seeni ñaan ci réew mi yàggal seeni ñaan ci adduna bi parce que ñoom yilifu ñu seen réew rek adduna yépp la ñu yilif tabarakallahu eh bu loolu wéyee nag waxtaan wi mi ngi jëm ci dunyal muslim muslim moo di jullit wante it ba ba muy nekk yonent waaw gudd gàtt wante ci biir loolu itam xëy na ci tëralin coow li dafa bari ci wàllu lislaam coow li dafa bari ci ni lislaam na mu war a faale jigéen faale wu ko ko coow li dafa bari ci ni lislaam li mu teg jigéen ëpp na jigéen attanu ko ñu bëgg ci sànni tuuti kaddu soog a dem ci duniyal muslim mu mel na yàlla dina di wax ci niveau yu bare te it ngeen baal ñu bu fekkee baat dafa jib bu leen choqué ndax nit la mu gëm lu ko ca choqué dafa gaaw bu ngeen déggee baat bu leen choqué ci biir jàng bi la xaqiqa la xaqiqa du nooy mukk waaw ku bëgg lu nooy ba faw da ngay dem ci aada mais boo ñëwee ci xaqiqa lool laal rek mu dëgër waaw waaw moo tax léeg-léeg baat choqué la te fekk na ci domaine u xaqiqa la loolu mooy tax ba tax na su fekkee ni wàllu jigéen ñi la mel na ni yàlla am na lum ci wax wax na ko ci niveau yu bokkul ndax yàlla léeg-léeg mu wax lëf fekk fi tolloog moom la ko waxe léeg-léeg mu wax la fekk ci diggante bi la ko waxee bala agsi ci nit ñi léeg-léeg mu wax la fekk ci biir mbooloo mi la ko waxe ci biir coono bi bu ci nekk nag foog nga xàmme ko mu mel na ci biir loolu jigéen ñi jël nañu liberté def dayira pour mu di seen wàll ci tarbiya bi nga xam ni tarbiya diine la tarbiya tariqa la loolu sañ nañu ko waxuma ni sañ nañu ko mais yàlla xiir na leen ci waxuma ni xiir na leen ci wante ñaan na leen ko dayira nag ku nekk nga ko dégg dayira dayira dayira dayira dayira mooy mooy lu wëndeelu li wëndeelu lan la mooy ni malaayika yi di tooge ci seen kanamu borom ci la jóge ndax àdduna bi yonent yee leen civilisé la bi yonent yi amagul nit ñi civilisé wuñu yonent yee wax nit ñi na yàlla mel wax leen naka la organisé na muy dunde nit ñi roy ko àdduna bi jàpp waaye bu dul yonent yi nit ñi di xar amul werante ba moo tax daayira foofu la bokk ah Cheikh El Hadj Malick nee na ci lu mu xam moom àgg na ci nit def mbooloom ci kaw suuf malaayika yi ca yàlla ñaan ko ndigal pour doxe ci seen adhésion waaw loolu àgg nañu ca moo tax mu di ko fàttali mbooloo yi daje di tudd seen borom ni dañuy fàttaliku ni am nañu ñeneen ñu adhéré ci ñoom te bokk ak ñoom daje ba bu ñu ko fàttalikoo rek teggin dal di am malaikullahi la ziltum min al kurama xafat bi jam'ikumu tuuba liman xadaru bu ko defee dayira kenn du ci wax dara bokk ndax ku deful dayira def mbootaay mu mel ni itam li diine sédd jigéen mënatu ko sédd lu ko ëpp ndax yàlla dafa wax ni bokk na ci kéemaan yi mu def ko kooku niveau bu kawe la bokk na ci kéemaan yi mu def xar bi mu leen xar yéen góor ñi kenn ku ne mu jël sa xarit bind ci jigéen ndax mu nekk sa wéttal ndax boo jaaxlee mu dimbale la xamuloo ni li jaaxal góor jaaxalul jigéen góor a gën a rëy gémmiñ ne jigéen a gën nekk jàmbaar ndax moo gën a tey góor dafa ëpp yàlla ko wax li taskunu ilayha bu ngeen jaaxlee dellu leen ci jigéen ñi moo taxit yar jigéen yombul parce que ki nga xam ni bu góor ñi jaaxlee ñëw ci yow yow it boo melul na nga war a mel tooñ nga ah boo melul na nga war a mel rek tooñ nga moo tax jigéen a ëpp yenn góor benn werante nekku ci mu mel ni itam kooku wax na ko mu mel ni it li téere yi jóge ci kaw asamaan di faral di wax di tudd aadam di tudd xawwa ñoom ñaar yàlla boole woon leen xéewal boole leen nattu boole woon leen xéewal boole leen nattu nattu bi itam maanaam ci ni nu koy dégg ñun mooy def leen a wàccee àjjana indi leen àdduna mën na bañ nekkee noonu sax parce que boobu amu ci solo li ci am solo rek mooy xam ni nattu bi am na te it bokk na ci nattu ñaar ñu war a ànd nga soreel leen nattu ëpp ko te aadama ak xawa bokk na ci li gënoon metti ci seen nattu mooy yàlla sànni ku nekk ci barab gisawul ak sa morom ñuy wutante lu mat a bàyyi xel la ñuy wutante ba gisante ba ñu gisante nee ñu sax arafa la ñu gisante ba moo tax ñu tudde ko arafa ndax la ñu fa gisante waaye fekk na yooyu yëpp li ci am solo mooy ñaar ñu war a ànd seen nattoo ngi ci ñu teqali ko te kooku noonu la ko yàlla waxit beneen wax dikk ci beneen wax bi ci dikk moo di li ngeen di wax ci baatu wolof ba muy metti mag diw rekk a woon ba muy metti mag diw rekk a woon waaw dafa am fu ko yàlla waxe ndax tadakkar tadakkar jamili fiika تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة ولا تنس تصويري لشخصك في الحشا وسلم لي الأشياء واعلم بأنني أصرف أحكامي ba afaalu ma asha maag diw maag diwa woon ba muy metti yàlla nee na tuddul sax ndey parce que ndey ëpp na doom gis nga wet giy denc liir ci ndey la tudd waaye tuddul ndey ba mu jeex ndax ndey ba mu jeex ëpp na doom waaye wet ga doom ji tëdd la yàlla tudd ni ba muy metti maag wet googa rekk la woon waaw kon nag ndaya seede ba muy metti yàlla ak ndey rekk a woon mu mel ni kon yàlla joxati na jigéen cëram تذكر جميلي فيك إذ كنت نطفة ولا تنس تصويري لشخصك في الحشا mbuus ma la dencoon ci wetu ndey maag moom rekk woon ndey sax ëpp na waaw kooku yàlla wax na ko ci fu kawe ba nag bi ñuy wàcc tuuti tuuti di wàcc tuuti tuuti ba agsi ci penc mi nag penc mi wa ida nisaau wa ida nisaau nashana fi ummiyatin radaa arrijalu jahalatan wa xumula nee na jigéen ñi ku leen dimbalewul yëkkati leen ñu bàyyi aada dellu ci yitte ak ak baax nee na fexe nga ba góor ñi namp musiba waaw bu góor ñëpp nampee musiba adduna tukki ci seen kaw bu góor ñëpp nampee musiba adduna tukki ci seen kaw amul amul werante moo tax ñu ne njirim njirim du ki baayam ak ndeyam ñàkk doole waaye ci biir ñàkk doole ke ñu xamal ko njub ñu xamal ko njub ba xëy wuy ji seen borom ci seen ñàkk doole ga moom mu topp njub ga ba xëy ñépp gis ko kooku du njirim waaw nee na njirim mooy ki ndeyma bàyyam di dund yàlla bëgg collaborer ak ñoom pour defar doom ji ñu lank ñoom day jeeg baay bi lank taluñu ko ndaxi xew xew yu dul jeex waaw taluñu ko ndox xuloo waaw kenn ku ne wax morom ma pakk maamam yàlla bëgg dimbali ko ñoom pour defar doom yi ñu tëdd doom yooyu ñooy njirim waaw seeni woy jure ngi dund waaye ñooy njirim ndax yàllaa ngi toog rek di leen xaat te amuñu jotu yàlla laysa al yatimu man intaha abawaahu من هم الحياة وخلفاه ذليلا فأصاب بالدنيا الحكيمة منهما وبحسن تربية الزمان بديلا إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا نعم لا رجل فتحنا ku defe ni du jigéen moo ëpp doole ci biir diine wala moo ëpp cër ci biir diine xamuloo sax lu xew waaw bu ñu wàccee ba wàcc ba wàcc ci suuf nag ba tey mu dellu ci li yonent bi daan def bu ñu dawee wuti mbedd ma ñu ni lu xew ñu ni fecckat dee fee romb bu ko defee sayyidatuna Aïcha ni ku man rus naa dawandoo ak jigéen ñi pour di ko seetaan yi te bëgg naa ko seetaan naka lay def mu ni ko kaay mu ñëw ba tolloog mur bi tungoom ko waaw moom yonent bi bi ñëpp yaakaar mu jël soxnaam teg ko ci mbaggam ni ko seetaanal muy seetaan di seetaan bu mujj mu ne ko ah yow itam yaa ngi ëppal li sama mbagg mi toq na di mu ne ko ah bàyyi mu tuuti waaw waaw waaw pour wax la naka la jigéen toll am na ñoo xam ni njabootu yonent bi lañu mais rus nañu ko rus nañu def noonu seen jabar dañ koy rëylu waaw léeg-léeg nga gis ku ni man waxuma la waxuma góor sax duma yàpp waxuma la jigéen ah te booba fekk na yab nañ la ba noppi mu mel na it wax na ko ci beneen place ndax gis nga li Cheikh El Hadj Malick waxoon fii ci Sénégal lu garaaw la waaye moo am ndax sëy sëy bu ko aadal lalee rek yoon dootu ko atti sëy xaqiqa rek ko mën a mën a lal waaw yombul dem ca jàkk-jàkk séddale groupe jàng fàtti yépp